asalaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi safoo seetaan TM TV tey ñoo ngi fi nga xam ni mooy banlieue bi di def doxantu di laajte ci li nga xam ni moo di rab nga xam ni léegi dafa fréquent ci àdduna euh, bi donc koo ci gis rek am na jàngoro boo xam ni bu ko sonal la mu tëdduwaale ak moom euh, dañuy dugg léegi ci biir gox yi ak goxaat yi laajte leen ñoom naka la ñuy dundee lool ak lan lañ ci xam euh, ñenn ñi ci nag nee nañ amul ça n'existe pas ñenn ñi nee nañ am na donc lépp lu ci mënti am rek buñ duggee léegi ci quartier yi dinañ xam ni dinañ ci am lu leer dinañ xam am na wala amul damay ànd ak léegi bàyyi si ñuy dundee euh, loolu noonu li nga xam ni moo di euh, mbirum rab. salaamaaleykum tata. maaleykum salaam. ñu doon def doxantu fii ci banlieue bi di laajte li nga xam ni moo di mbirum rab nga xam ni léegi c'est fréquent donc ñuy laaj ñenn ñi xam gëm nañu rab am na wala amul ma la doon laaj ci yow noo gisee loolu. Oh, waaw rab de gëmuma woon ne am na nag waaye léegi gëm naa ne am na vraiment parce xam nga li ñuy naan. gis euh, weddi bokk ci mhm. dama si dëkk ak boo xam ne nag am na wax dëgg yàlla moo tax ñun ñu gëm ne léegi fi mu toll nii loolu am na preuve nga ñu mën a wax nii am na parce que comme ne nga am nga rek kon cest à am na loo ci jot dund ma la doon laaj euh, lan ngay wax ci loolu. waaw li ma si jot a dund nag mooy comme li ma wax sànq rek weddi gis bokk si ndax ki ma bokkal ndey ak baay la lu mel noonu jàpp def na ak moom 6 ans. wax dëgg yàlla fu ne dem nañ fa fu ne faju nañ fa sottiwul bi ñuy sam benn rakk bu nekk États-Unis nag moo koy xool ba gis ku ñu naan ceer na mu Mouleye Sow moom mu jaral ko tam mu dagg biyee ñëw senegal jàpp si loxoom yóbbu ba ci moom te ba mu demee ba ci moom nag wax dëgg yàlla gëm gëm nañ ne loolu am na ndax li si jot a def ba léegi fi mu ne nii wax dëgg yàlla macha allah kon moo tax ñu ne gëm gëm ne am na te buñ ko fajee it mu dem. te boo tasee kumba nit di nga xam ne tase ngaa kumba. booy non li ngeen di laajte wax dëgg yàlla man daal am na lu ma gis ak lu ma xam. Mhm. mun naa si wax. Mhm. parce que ginnaaw yàlla ak yeneen bi man Europe laa nekk Europe bu mu nekk nii. Europe nga nekk. waaw si Espagne. waaw léegi nag foofu mun nga dem di faju ji si docteur yi mhm. ñu xool sa yaram. ñu xool eh, eh, sangare bi kii bi eh, deret bi ñu xool yëpp yëpp daal comme joueur nuñ koy defee mun nañu xool duñ la gis dara loo xam ne lu loo xam ne daal ñu ne la lii. lu mu ngeen sa feebar. waaw léegi nag loolu nag nga dem booy obligé nga xam ne du feebar ñoom fii moom si Afrique la parce que il faut nga delluwaat xool. fajkat ñi nekk fii. Mhm. kon feebar bi nga feebar du feebaru Europe. waaw man mun naa wax du Europe. Mhm. parce que su fekkoon Europe foofu dafa bëri ay docteur mhm. mën nañ ko gis. mun nañ ko gis parce que man fu may liggéey chaque année dañ koy xool yaram bi. comme joueur yi nañ koy xoolee pour son cœur bi ak euh, yaram bi fu mu toll métit bi yëpp dañ koy xool loolu nag duñ ko gis der loo xam ne. dina ñu xam ne kii daal dafa feebar. Mhm. kon yow la moo la daal rab la wala. booy noonu lu ma dal boobu mun na nekk rab mun na nekk euh, beneen euh, bind la ko alxuraan exemple. Mhm. parce que man dama am su ma demee liggéey benn fan ñaari fan fekkee sama biir bi mu ngi gonflé. Mhm. du ma xam nan laay def samay àdduna te mu yàkkal ma liggéey boobu jour boobu bu bugg naa liggéey te lu tax du mu dem liggéey kii boobu quoi feebar boobu. moo lay empêché. waaw moo may empêché boo du ma am sax la la. kon gëm nga ni rab am na. waaw loolu nag mun naa wax loolu rab la quoi parce que ay yenn euh, ak euh, parfois su ma damay gént lu bari quoi. waaw parce que man noonu laa ko mun a gisee quoi. Hmm, maa ngi lay jaajëfal euh, di nuyuwaale sa caméraman bi donc pour répondre sa question man gëm naa ne affaire rab am na. nekk na loo xamante ne yàgg naa ko gis moo xam dans la société ak fu mu mënti doon nekk na loo xam ne yàgg naa ko gis mais par expérience gën naa dëggal que ne euh, rab am na parce que dafa nekk expérience personnelle boo xam ne man dama ko dund. Mhm, donc nga ni am na donc lan lan nga ci dund ba mën a confirmer loolu noonu. bon en fait yu bari yoo xamante ne bon dans le cadre moo xam personnel social. di nga si dund yoo xam ne daal nit ki ci boppam yow di nga xam ne carrément am na lu lay dal loolu mooy waral ñaare jóg ne ah xaaral ma dem seeti ki nga xamante ne am naa yaakaar ne mën na faj sama jàngoro. kon su ma déggee li nga jot wax rab am na ça n'existe. effectivement rab am na. lan ngay wax ñenn ñi nga xam ne dañuy contre parole yi. comme sa <laughs> bon mooy li ma li may faral di wax rek nit moom euh, ku si nekk loo gëmul dafa fekk ne daf la dalul. waaw loo gëmul dëgg dafa fekk daf la dalal bés bu la dalee dëgg di nga xam ne carrément ah lii kat du ay caaxaan voilà. na hmm, am na. non gëm naa loolu gis naa ko fii ci seen Moulay Sow gis naa lu mu def ay kéntaan yu mu yoo xamante ni yéeme na trop daal waaw. moo tax nga gëm ni am na. waaw gëm naa ne moom am na moom waaw. waaw ñenn ñi nga xam ne dañuy contre li nga wax nee nañ rab ça n'existe pas yow lay wax ci loolu. daa fekk dalu leen rek wala gisuñu ko. Mhm. bi nga gisoon waaw dañuy am na moom waaw. kon yow am na. waaw moom c'est confirmé moom. am na. rab am na am pagay am pagay am pagay ñu koy faj bari nañu lool. waaw ñuy faj rab bari nañu lool mais man am na sëriñ bu may dëgg xam nga parcelle unité 19. Mhm. ñëw naa fa gis naa lu muy faj xam naa ne moom. Euh, moom man lu muy faj ci rab ak euh, seetaan yi mhm. oh exceptionnel waaw ñu fi ñëw ñëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm ndaxte gis nañu waaw man mi di wax ak yow dam ko dam ci teg sama bët. ci jot waaw am na loo ci jot a dund gis naa ko samedi bi ci guddi gi ba nëgë nii maa ngi fii xam lu mu faj ci rab. mësuma ko gis fenn waaw rab am na moom am na ku la ne rab amul moom waxul lu xam gis xam daf daf daa daa daa dakaa dakaa kiiwul dakaa dakaa amul wala xam fekkeewul fu ñu koy faje waaw. rab am na bu baax. doomu aadama buy dox ci kaw teer. am na rab boo nga xamante ni mu ngi lay génn si yenn yi si àdduna dafa am rab bu baax am bu bon. ab rab yoo nga xamante ni <coughs> duñ defaate dara am bu jigéen am bu góor. soo xoolee jëlal jëlal ak daawur wala nga jël maam njare yooyu yëpp ay rab la. rab yoo nga xam nga jël rabu tëngeej maam Kumba Lambaay la rab am na façon bu ne façon rab bu ne am na rab ku ne la amul day wax lu ko neex. doomu aadama si kaw suuf rek yow yaa ngeeg sa rab xañ na da nga xamul mais rab moom lu am la loolu ku ne amul day wax loo nga xamante lu ko neex la man de li may gis man mii di wax ak yow sax boroomi rab laa. am waaw am na lu ma si jot a dund. li ma lay wax lu nekk la sama rab moo may génne ci lu nee sama këru sa ci àdduna lu ma war a dal moo ma koy fànqal rab ku ne la amul day wax lu ko neex dafa am yu baax am yu bon. ba tey ah, ñu ngi ci doxantu bi ma dajawaatee kenn koo xam ne ci quartier la dëkk ah, ma lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. Mm, tey ñu amoon benn thème boo xam ne day wax ci rab wala doon laaj rek. ndax rab am na wala amul. rab am na rab ku ne amul dara jàpp am na. Mm-hmm. Ah, lu tax nga ni am na. non damaa gis ñu jàpp di leen daaneel ñuy waxtu di yooxu lu ñu koy def. di simmeeku moo xam ne rab am na. am am preuve. waaw am naa preuve parce que am na ku ma jëlee war ak andi ko fii soo ba léegi maa ngi fii mënut a fexe ba dugg. ok fii da nga fii pour faju si. non dama fee ñëwoon pour andi fii sama benn client magam bu góor laa fi andi woon pour mu faju si. donc loolu moo tax nga mën a confirmer rab am na. am na parce que da koy daaneel ma koy fekkee muy wax looloo tax ma confirmer ne rab am na. loolu moom mën naa cee wax ndax rab am na parce que gis naa ñu bëri ñu mu jàpp. Euh, boo gisee ñu ñëw fii sax boo loolu moo ñëw fi moo waral suñu tànk tey nii parce que boo xoolee ci YouTube bi ku mel ne sëñ bi ñu si nii tey am na tey misaal yu bëri yu mu ci wane ci YouTube bi kon ku ne rab amul boobu dalaa jàppul tey gis nga war nga lañ jóge nii pour ñëw pour indi sama benn rakk boo xam ne nii dafa wéradi comprendre moo tax ma gëm ne rab am na. ok mën nga ko confirmer parce que am nga ci preuve. bien sûr parce que boo man damay gëstu quoi xam ne ma bi ma ko gëstoo ba xam ne laa xam ne rab effectivement am na. dafa dëggu ko loolu. am na parce que ñu bari ñoo ngi koy dund te xamuñu. dund te xamuñu te mi ngi seen biir ñi ngi ànd ak moom ñu mel ne problème mu jinne problème mu rab day am ñun gis naa ko ba taay ñoo xam ne jinne da leen jàpp am ñoo xam ne tamit rab moo leen di téye xam nga te duñu mën a faju duñu am mooy pour faju duñu xam yoon bi mais suñu gëstoo yaakaar naa ne yàlla mën na leen defal sutura quoi. waaw soxna si boo ma laajee question boobu damay kontaan pour tontu la parce que boo nee rab amul. rab amul daf la jàppul parce que rab jigéen ñu ngay gis ñuy dox ci mbedd mi yëpp koo gis am na rab wante rab yi dafa wutee xam la balaa nga xam ne rab yi dafa wute ku rab jàpp am na dëmm am na ñoo xam ne dëmm daf leen di jàpp am ñoo xam ne seytaan daf leen di jàpp gis nga ñuy ñëw si kër Thierno Moule ñu bari ñu bari dañoo am ay rab dañuy wax man aw ma rab bu ñëwee fii bu Thierno duggee bu jàppee kenn bu commencé wax ay waxam da ngay gis nga daanu fekk yow xalaatoo woon. ku ne jinne amul dëmm amul daf la jàppul ku si bëgg am lu leer ñëwal kër Thierno Moule fii boo ñëwee di nga xam di nga gis loo xam ne mosoo ko gis. Ah, nooy gisee sénégalais yi nga xam ne déjà dañuy faral di critiquer ñi ne nañ amul ñi ne nañ am na nooy gisee ñenn ñi nga xam ne gëmuñu ko. man de sama bopp laa xam ku ne amul boo ñëwee kër Thierno Moule di nga xam jinne am na walla dëmm am na. boo ñëwee foofu Thierno Moule lu leer nanj lay liggéey sëriñ yi di triqué ñooñ moom Thierno warul amul sax lu muy amul seen jot parce que ay preuve yu leer nanj lay wone fii. donc li nga xam ci am naa si preuve bu leer nanj te ku weddi du man rek de. Sénégal ñëpp a nangu ku nanguwul da ngaa soxor. Thierno lu muy faj amul sëriñ bu ko mën fii man moom sama loxo si kaw dama gis lu muy liggéey te du man rek koñ bi ñëpp ñëpp Sénégal ñëpp a nangu. waaw ñëpp a nangu. mbokk yi gis ngeen lii lañ leen indiloon tey fii nga xam ni moo nekkoon doxante bi ñu doon def ànd ceeg waa TMTV euh, dugg ci gox yeeg goxaa ci laaj nit ñi ak ñi nga xam ni euh, mooy doomu aadama yi naka la ñuy découvrir euh, li nga xam ni mooy di rab ñenn ñi wax nañ li nga xam ni moom lañ ci xalaat ñii nee nañ am na ñii nee nañ amul ñenn ñi tamit nee nañ am na parce que am na ñu ko ci jot dund donc nii lay demee à fois li leen indiloon TMTV di la leen indiloon ci doxante bi nga xam ni moom la doon def da leen fi jaaree joxaat leen dig daje di wax a la prochaine FM ci beneen doxantu ak ci beneen thème merci beaucoup.